تقرى إلى الله وحده yenaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir wala bitim moo tombé juróom fan sa weer Cheikh Mamadou Fall na ko wëreeree mooy borom xam ne sa xol seddu na jaami dunya war na dimbale tamit surtout ba seet moo ko sosal Maolana Seydi Alaye Seydi 1981 fii ne taalib yi dama bëgg. ñu sosal suñu xalifa bii na Cheikh Mamadou Fallou Touré siyaare dugub ku xam kilo wala nga am liibar loo xam nañ ko dajale andi ko suñu sëriñ bi baax bii doomi xutbu salaan bi Maolana Seydi Alaaji Sëriñ mu defar jaami yàlla yi tey ak ëllëg 1981 fii sama dina salaam siyaare bii nag réew waaw moo tombé dimanche mbooloom daayira ba bitim réew ñëpp bàbbeeku neen ñëw fii Madina Salaam rawati nag ñu ñëw fii seet si Serigne Mouhamadou Moustapha Ibn Khayri ñëw fii fekk ba seen résidence Serigne Khayri bi moom laa tuddee Cheikh Mamadou Khayri barkeem la ma ko yàlla joxe yërmandeem la ma ko yàlla joxe waaye goreem la ma ko yàlla joxe ma tuddee ko ku baax ki mooy Khayri xaal mi naan xam ne mooy borom waaw yàlla nga dafa yàlla. waaw ñu santaat yàlla sant gi moo de ku mel ni suñ bay alaaji Mansour Touré bu daal di waay léegi la fi joox seet ci doomam Cheikh Mamadou Moustapha maa ngi si mbégte lool waaye muy suñu saas tamit nag muy suñu saas parce que da waxtaan sa baayam alaaji Mansour la tëllaat si kon jëm alaaji Serigne moo teew waaye yàlla loolu loolu Ahmadou Khadim Mbacké wax waaye yàlla nañ ko xam yàlla nañ ko xam waa maa ngi ñaan allahu nag subhanahu wa taala mi nga xam ne noppam baax mu daaj alaa sëriñ ne noppam yàlla baax mu daaj loo ko wax xam na ko yàlla du bind benn jaam ragal jaam ba waaye dana dana bind jaam rus ba ndey mel kaana jaam ba nu mel waaw waaye siyaare reen bi yàlla bu ci soy mako kenn ku ne bo fi jige ba dem len haaju bo baye gëna yàlla ko yàlla faj sa barke Abu Abbas Ahmadu moy tidiani barke maulana Seydi Alhaji serigne barke khairil hala miina barke maam Serigne Touré waaye barke Ibnu Xayri borom joxoñ bële nag waaw waaw waaw waaw waaw waaw kii de Cheikh Mamadou Moustapha gannaaw ba serigne khairit nekk ay wayjuram moma jàng alquran moma jox widd salaati faatihi moo ma jox ijaasa teunkul ma tamen si tariqa Cheikh Tidiane neena ma ibnu khairi sama baye moy wax de serigne mustapha manako ne Touré mun ma Cheikh Tidiane neena lépp lu yënatu yàlla Muhammad jox ba man Cheikh mu jox ko Serigne alaaji Serigne mu jox ko Mouhamadou Khayri kay la ko jox tënkuñu sa tarixa bi su ko defee mbooloom ndaw ndaw ñu xam ne yéen a ma jublu yoon wi nga xam ne moom laa la teg rek mooy yoon idina sirata mustaqim nango di xeesal njàpp yi da taqoo njàpp yi da wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nangoo jaamu suñ borom waaye nangoo topp tamit way juuri suñ fa doxee jógee dem xuti sëriñ diwaane xaarifina sëñ Fallou Touré mu ne ko amul sëriñ doo fa toog diwaane xaarifina képp ku xam ne xamoo sëriñ diwaane xaarifina doo fa toog diwaane xaarifina nag nu mel saaj na mu ngi mel ne assemblée nationale waaw président assemblée bi toog député yi war a ñëw mbooloom sufóor bu xam ne yaa ngi andi député boo ñëwee ba gaar député ba wàcc yow da ngay dem gaar ji paak député bi rek moo xam sañ-sañ dugg sa biir noonu la assemblée nationale mel ku xam ne Maolana Seydi Alaaj Sëriñ du sa sëriñ maam Khalifa Niass du sa sëriñ xamoo ku mel ne Baye Niass xamoo ku mel ne euh, euh, Cheikh Saad Ba euh, Habib ñu baax ñooñu diwaan xarit fi na doo fa toog kon ne ndaw ñi jox leen ngeen dem jàpp tarixa Cheikh Tidiane yi waaw fonk leen nag way juur yi jiite leen way jur yi képp ku jël sa xalaal da ko jox ibnu xayri bàyyi sa day bàyyi sa bàyyi danaa ko lekk su ma la ñaanal yàlla suñu borom bañ wax ne mooy maye mayewut sëriñ si may mayewuñ yàlla mooy maye yàlla mooy maye yàlla mooy maye waaye da nga juboo sa borom ba loo ko wax maanaam mu def ko yàlla du bind benn jaam ragal jaam ba waaye nee naa leen yàlla dina bind jaam rus jàmba ngir mel kaana jàmba nu mel kon jàmba nan la war a mel mooy ragal yàlla waa nekk sa xol ba mu jub bëgg jaam yëpp def ne ay mbokkam leen waaw luñ la mën a defati yow no problème si yow bàyyi xel bu leen def lu da nga xaag da nga yàgg salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñëw il boo góorgóorlu ci. yow la góor yi lay man na ko def. yow la góor yi lay def xanaa na yàlla bi yow moom yow mu ngi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Serigne Mouhamadou Moustapha Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mu ngoog Serigne Cheikh Omar Dem mi ngi leen di nuyu di di di ak mbooloo mi mu àndal ñëpp. tàmbalee ko si Serigne Alaaji. tàmbalee ko Serigne Ousmane. ak njaboot gi mu àndat yëpp. ñëwal mboolem njabootu Njaay mooy famille maam Cerno Aliou Dem yëpp. rawatina kër Serigne Tidiane Dem. ni mel kër gii. ne kër gii mooy këram. mooy nooyeem. mooy yëngatoom. mooy sawxaam. mooy cofeelam. ne fii la bëgg. ba ba muy làqu. ko bëggaloo njabootam. ko njabootam ki fii ñëw tey nee fii ñu ñëw tey. bu màggale ci nee pay bu màggale si ñun. pay bu nee pay bu am ormale si ñun. nee tànk yi ñu fi duggee. mooy tànku taalibe rek. nee jéego yu bàyyam doon dox rek. moom moom lay feddiliwaat. nee moom la sëñ Cerno doon doxal. mu ne amuñ lu ko ëpp. bu ziyaare Njaay Kunda ñëwee. ba joxe gannaaw ba joxe gannaaw. xew guy amaat ci Saalum rek. bu ñu ëppal bii bu ñu ëppal bii ñoom amuñ ko. kon nag ñu ñëw jox leen ci seen cër. ñu ñëw ndokkeel leen ci. ñu ñëw ànd si ak yéen. ñu ñëw wéttilu ko si waan si ak yéen. ne ñu yëg ne. ne bu ñëwee ba toog seen ron. ñu xool leen. ah bëti cofel ah yi seen bàyyi daan xool seen maam. Ah, ne dëgg-dëgg. ñoom it dañuy yëg ne jot nañ ci loolu. ne bu ñëwee. ne ñu tàllale leen loxo. ngir bis bi ngir bii. ngir seen jëmm ngir seen jëmm yi. li leen yàlla defal li bàyyam xooloon si yéen. ah dëgg dëgg. dañuy yëg ne ñoom it jot nañ si. sëñ Basiru. Basiru Ka mi ngi nii toog. jógee ba Dakar. ànd ak ñun ànd ak ñun. bëgg ñu sopp ñu. fa tabarakallah luñ nekk mu nekk ci loolu indi na ba jox ko fii mu xam leen mboolem këru diine yi nag ci Sénégal rek moom jokkoo na ak ñoom fu mu dem rek amul fa frontière kon nag lii boo ko xoolee mooy mbaax alhamdulilah alhamdulilah bi alamin bis bi xat na nag bis bi xat na nit ñaa ngi leen di soxla te waxtu bi jot waxtu tànt ba ba ñëwee ba léegi si midi ñu ngi wër rek di ko tàmbalee si xalifa bi njaboot gi yëpp fu ñu mën a dem rek danañ fa àgg ku ñu mënta àgg it da nga yëg ne suñu xol àgg na foofu ndax ndax bis bi il faut ñu buuxante ci buuxante gii nag poussière bi najante gi ñaq bi coono gi mooy tax nga jot barke bi nag kon nak ah ñu ngi leen seen jox seen way di leen ziyaara di sakku ñaan nak di leen wone ah ñun seen jabol leen ñu ngi fe wa seen jabol leen seen jabol leen fu seen jabol leen alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mustafa ni mu ngi wax alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wax alhamdulilahi di wa alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla bu baax sant yalla bu baax ci bisu Cheikh Mamadou Fadil bile ci bisu Cheikh sayyid fadil Touré radiyallahu anhu mune buñu mu ba Cheikh Omar foutihu ba Cheikh Omar foutihu dem dem. Don khalifa. Don khalifa. Sun mam ju baax sun mam ju baax si Ahmadou Tidiane. si Ahmadou Tidiane dem. yalla yalla yàlla fayal ñu yalla yal na yàlla fayal ñu mbolom ànd ak mbooloom. ànd ak ñew njabootam. njabootam. ñëw yeesluwaat. gi. kóllëre gi. dontu rapput. dontu waaye dafay ñaan rek. waaye dafay ñaan rek. mu gën a dem sa kanam mu gën a dem ci kanam. Mm-hmm. lii mu def nag. lii mu def. mënta paase mbaax. mënta paase mbaax. bu yemoon si El Hadj Ahmadou Mokhtar. bu yemoon si El Hadj Ahmadou Mokhtar. doy na sëkk njaboot. doy na sëkk njaboot gépp. parce que moo woote tey. parce que moo woote tey. waaye nu ma amee Ahmadou Mokhtar. waaye nu ma amee Ahmadou Mokhtar. laa xamee mboolem njabootam El Hadj Serigne. laa xamee mboolem njabootam Mawlana Seydi El Hadj di sëtam. si ñëw bii mu ñëw fii. sa ñëw bii mu ñëw fii. daf maa yokk man. daf ko yokk moom mii. yokk sama daraja. yokk darajaam. yokk sama maqaamaam. yokk maqaamaam. ba dimbale tamit jaam dimbale jaam yi. bañ xam ne. bañ xam ne. ndeketoone. ndeketoone. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha. digganteem. digganteem ak doomi bàjjenam yi. ak doomi bàjjenam yi. nii la rattaxee nii la rattaxee. kon dafay dimbale jaam yi. kon dafay dimbale jaam yi. xam hamdu. boo gisee communiqué bii. boo gisee communiqué bii nga xam ne mu ngi ko def ci mawlidu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu def ko barki démb dama ne. dafa wax ne. maa ngi si xoo Cheikh Ahmad Cheikh Omar Dem. mu fay wax xalifa Cheikh mar Dem. ak mboolem njabootu Cheikh Ahmad Tidiane Dem. ak mboolem njabootu Cheikh Ahmad Tidiane Dem radiyallahu anhu kon ñëpp a ngi ci biir. da rafet bi. da jotaay bi. da kontaan lool. di kontaan lool. bi li mu wax na dëgg. waxtu wi jot na. dafa xat. Hmm. xat na. si lii mu defal ma. waaw lii mu defal ko. defal na ko ñeneen. defal na ko ñeneen. continuité bëgg ko defal ñeneen. continuité bëgg ko defal ñeneen. sëñ Ousmane ñu ngi lay jox la sa wàccuwaay. sëñ Ousmane ñu ngi jox sa wàccuwaay. da ko jox alaaji da ko jox Seyid alaaji Maodo Malick Maodo Malick Mahamadou Xayri mi ngeen fekk Mahamadou Xayri mi ngeen fekk imaam Assane imaam Assane ak euh, soxna yi ak soxna yi mbooleem ak mbooleem Njaay Kunda Njaay Kunda mbooleem Kaolack mbooleem Kaolack mbooleem taalibi mbooleem taalibi ba Gàmbi ba Gàmbi baxuñ kenn baxuñ kenn ba kër alaaji yaro ba kër alaaji yaro baxuñ kenn ñaan yàlla rek ñaan yàlla yàlla may ñu yàlla may ñu fekk ak tal fekk ak tal xàgg ak yàgg barke Seydi alaaji Sëriñ gàmmu gi nag gàmmu gi nag sëñ Habib joxe na ndigal sëñ Habib joxe na ndigal 4 février la. 2023 2023. waaw le 20 euh, waaw le 4 février. le 4 février. 2023 ah, 2023. ca Dakar ca Dakar. waaw su ko defee ñu ngi ci woo. ñu ngi ci woo. da ci woo njaboot gépp da ci woo njaboot gépp. incha allahu barakallahu lana fikum. ñaan fekkee ko dakal. amiin yàlla na jub te yéwén. amiin yàlla boo xam dox. amiin yàlla boo xam gàllankoor. amiin yàlla na dàq yi weesu. amiin bi jaay Seydina Muhammad. amiin amiin siyaare bi amiin. yàlla bu mu ne si mu jëg si amin yàlla ko defaat yéen amin 2023 bi amin yàlla dàq at yi ñu wér amin yaa rabbi atu jàmm amin atu xiwal amin atu tiranga amin atu wërsëg amin atu bëgg amin atu yokkute amin di jaay si dàmm amin sallallahu alayhi wa sallam amin yàlla suñu iman bi amin yaa rabbi lépp lu ñu ci ñàkk amin yàlla bu suñu iman amin di jaay si amin bu jaay temps amin ñaana ñaan laaw hay laaw laaw laaw hay laaw

la la hi la la la la hi la la la la hi la la la la hi la la la la la hi la la la la hi la la la la hi la la la la ci Yàlla la la la la la la la la la la la la waliye alay bayo bayda la ya la hay la la la la hay la la la la hay la ci yàlla waliye alay bayo mansar la la hay la la la la la la hay la la la ya da hay la la la ya da hay la la la la ya da ay la la ci la la ya da ay la la ci la la ya da ay la bu sama waate la la ay la ci la la la ay la ci la la la ay la ci la la la ay la ci la la la ci yàlla la yàlla ci yàlla bay Serigne Touré yaay baay Serigne Touré. rijalala ci yàlla baay Serigne Touré. rijalala laay baay Serigne Touré. rijalala laay waay baay Serigne Touré. rijalala laay ah, waay baay Serigne Touré. rijalala laay waay baay Serigne Touré. coy borom jamono baay Serigne Touré. rijalala laay waay baay Serigne Touré. rijalala yoo maam Serigne Touré. Rijaalo maam Serigne Touré. Rijaalo maam Serigne Touré. Rijaalo maam Serigne Touré. Rijaalo laay waay. Haji Serigne Touré. Rijaalo laay waay. Haji Serigne Touré. Rijaalo borom jamono Allah Allahu. Haylala. Cheikh bi. a wér. gën a xam mu ne bañu ko yàlla fayalee mboolem jullitu yàlla mboolem jullitu yàlla dana xaj fay gi dana xaj ci mu ne yàlla ko yàlla daf mu ne ku ngërmande yàlla të na nga sàkku ngërmande ku yàlla gërëm. sàkku ngërmande googu nag. sàkku ngërmande moo waral ba sëñ Fallou wootee. mot moo waral ba sëñ mboolem Saalum. kenn ku ne. kenn ku ne. bàyyi nga li nga ngëboon. bàyyi nga li nga ko. ñëw ngir làq ngërmande ngir làq kon yàlla bu kenn sooy. kon yàlla bu kenn sooy. du jël sama nuyoo. du jël fayam. di ko jox Ibrahima di ko jox ko Keba Ndiaye jox ko mboolem daayira bi jox ko mboolem ripp ngeen wuutu ko si nuyoom mu gën a jote mu ne loolu moom ñu xamee ko noonu jël na nuyoom bii ak fayam jox ko Ibrahima Dikko Kamara doomu alaaji Aliou Kamara jox ko Keba Ndiaye mu jox ko mboolem daaira ba ak lu wër ripp lu wër Saalum ñu huutu la foofu mu wóotu leen fii si jotaay bi sant na gërëm na yàlla na yàlla gërëm suñ borom lu mu gërëm dootul yàqu yàlla nañ làq ngërmaan dëgg Maulana Cheikh Alhaji Serigne Touré. mu ne Camara mu ne baat bi neex na. yàlla na wér gi. gën a wér gën a xam jàmm. xorom si xorom si. dana law suukar si amin dana law lem gi dana lem weex gën a law taaru gi amin amin amin amin amin amin amin mu ne soxna Mariama Kamara yaayam da suñu yaay na fa yàgg amin ak mboolem yaay yàlla ko yàlla def amin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 sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim allahumma salli wa sallim ala khayna rahmat rabbaniyati wal yaqut mutahaqqati haytati bi markasi fuhumi wa mahani wa nur lakwani mutakawinat lada misai bi haqq rabbani al barq lastahi bi musul arba'i mali hati likulli mutalimina bahra balawani wa nur kalami lashi malat bihi kawnaka ayat bi amkati makani allahumma salli wa sallim ala khayna aqlati tatajalla minha hurus aqaiqi hayna ma arfi laqum siratika tamil asqam allahumma salli wa sallim ala talaataq bila qikan si laxsam ifilaatika min kelleeki yaa taati noori mu taxsam sallallahu alayhi wa ala ali salatu harfina biya iyaaw jëf ji sell moom solo fa yàlla yàlla jàpp jëf ji sell ko barkel ko daf koy kaay maqaama jitu waaye jaam sa may jaam xàgga may jaam yàgg yàlla bu jaam sooy bu jaam dabàyyi ni séem kóllëre njort yàlla wala lu këpp fi teg jaam ngeen jékk fi li gis sa ngeen nekke ko ngeen xeeb daaw yàlla ngeen daje yokk su bu leen daje wàññeeku ngeen si ñaan jàmm la ngeen si jóge te ngeen si xam jàmm xam borom na la yàlla na barke sa bayra si taar na may la passeport ngeen paas yàlla may la visa ngeen visa tukki tekki dem Amérique am dakk dakk bi cooro bi yàlla na ko yàlla dakkal dëkkal leen nekkal leen nàkkal na musal leen sa mosal leen musal leen moo ci rebo dara feebar gësam garab yàkkam la waa wala ñoo fam lu ñor xam borom toq toq ma gën jure fekk ri ki ma gën fekk rek buy dafa ñu du ko fuñ tuun fuñ tuun diwle ndox bu mu ba doon sama tànkuti yàlla a a yi dollar yi si jox ñi bu yàlla sëq yi bu ko baax ako bar yàlla yàlla booluñ su boobu bu yàlla sëq yëpp yëpp safara xamu ko bon akuma yàlla yàlla musu ba musu yàlla yàlla musu sa ñaari si mu saate safara barke laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke abou abbas ahmad tidiane barke abou abbas ahmad tidiane barke abou abbas ahmad tidiane barke mawlana cheikh mamadou fallou barke cheikh na mahamadou fallou barke cheikh mamadou fallou barke cheikh mamadou xayri barke cheikh mamadou habib barke cheikh mamadou habib barke cheikh mamadou habib barke njoboote mawlana seydi alay sëriñ barke hajina barke hajina barke firdaws barke laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke qaharu barke jabbaru barke batu barke yabaru yabaru yabaru yabaru barke yarasa Sakho barke Yaara Sakho barke Yaara Sakho lépp yàlla ko yàlla gërëm sa barke Mawlana Seydi Alaji Sëriñ barke inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallam tasliman sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin rabbil alamin allah allah allah allah الله وحده yanaalul maqaamala raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew yi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dina ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir